Mamadou Mouhamed Ndiaye jërë ngeen jëf gox yi may bëgg a lim seeni borom bu ñu ko xamee bu ñu ko xamul nañu xam ne ñoo ngi leen di gasel bàmmeel muy Caaroy ginnaaw raay jak saaw jàmm gën ak Sikap Mbaaw xabaar baa ngi ci observateur ubbil journal bi SAR di société africaine de raffinage ay pipeline am di tiwo yooyee ñuy jaarale pétrole ba te di ko suul ci suuf am na ca yuy bëgg kalaate te bés bu ñu explosé yéen kaay bi nañu ay junni junni doomi aadama yu nekk ci dëkk bi yowmal xiyaam la ñu jëm journal bi nañu te nag yëf ya yamul foofe ndax ay société yu ca mel ne Kafal Nestlé Uniplast ak Aventis ñoom it bés bu yëf ya kalaate ci amoon na fi ca la ñuy mujj ñi xamul fan la ñuy mujjee ak njëgu dund gi yokk yu jol-jol yi jëm kaw Le Quotidien nañu moo di borom kër yi journal bi xëy ñu ci xëtamu njëkk ci carburant bi ak njëgam di yokk ba mel la lu rusa taxaw journal bi nañu la mu nar jur nag moo di gaz moom it yokk topp ci la sinekaay ne ko topp na ca ba noppi gaz bi ak njëgam yokku na ne gaz bu mag bi nga xamante ji ñu bari ci kër moom la toggee léegi boo koy sarse joxe moom lañ la cay delloo ma dellu ci xët mu njëkku la sinekaay ak la mu jàppe ak càggante ak bayliku ci njiit réew mi Macky Sall moo di député ya fi ne woon oto ya ñu yoroon toll ci ñaari téeméeri oto fukk ngir député yu yees yi enquête yéen nañu Macky lu néew a ko wutale ak Abdoulaye Wade ndax Abdoulaye Wade bari na lu mu fi dikk na yeggale ko ba ci fukki général ak ñeent ñu waroon a fal ci l'armée bi Macky Sall dana leen fal Semga Abdoulaye Fall yéen bi nañu fukki fan ci ca lay dem ma dem ci libération mi ñu xëy xamal ne inspection générale d'État ñoo ca New York ngir wari ji fa fukki milliards ak juróomi téeméeri mi weer mu bëgg a sensé gouvernement bi kuy jéem loo mënul ña lay seetaan ñooy njëkk a sonn l'école bi ñu bëgg a tijji ca tijjeekuwul Sud Quotidien ak Populaire ci la xëy ka ca njëkk di Sud Quotidien nañu l'école bi dañu koo bëgg a ba taxoon ñu ne jàngalekat yi démb nañu dem ca l'école ba waaye yëf ya doxul Populaire nañu la ko teree dox moo di l'école yu bëri ña tëmb ca ndox ma baa bokk l'école yu bëri askan wi nga xam ne ndox mi dafa nangu seeni léegi tey mu jeex ndax nguur gi la mu moo di jël takk der yi maanaam jéem yi ma jóge foofee dem ci lamb ji sunu lamb xëy dikk ak ñun ci xëtam mu njëkk ci fas gi waajal seenuk ndëpp yéen bi dañu gannaaw kàddu yi fi tafaagee yëkkati woon kàddu yi fi Balla Diouf yëkkati waa fas dañoo fas yéene ndëppal seen bopp samedi bii di ñëw ca la koy def Bismi bu Soumbédioune moom ci laas ma nga xëy ci association des lutteurs du Sénégal Bismi Ndoy ne Mohamed Ndao Tyson ak ñi ko dar ñëpp dañoo jàppe seen bopp ay VIP ci lamb ji te duñu dara lu dul ay màggati dof kenn ca ñoom ñooñee di Balla Gaye 2 Triple S la Balla Gaye du dara maa ko man fopp ñi koy def ana nan lañu ko mëne yëf yi mi ci Walf Grand Place journal bi xëy def gëstu bu yaa ci góor ñi lan moo tax ñuy tromper seeni jabar ñamu ca dajal ñenn ña wax nañu ka ca njëkk nee na jabaram mënewul lu bari ci kaw lal bi maanaam du dóor du fayu loolee tax mu bàyyi ko fi dem di booral di tëggi dat FIFA di suwe Ligue des Champions maanaam ci gàttal loolee tax muy doxaan am na ci koo xam ne nag moom nee bi nañu ay géwél ñoo fa nekk ci ripp ji mel ni tulleeg màlle waaye ba ñu demee ba bët di waaje set se la ñu gis ne am na ñu leen rax ba ñu ko xoolee gëstu ko ndekete ay góor jigéen ñoo rax ci seen biir xeex bi mel ni tulleeg màlle yéen a bi nañu ko kat yàgg galeen ya di naaw góor jigéen yeeg géwél yi nekk ci xeex ba bët set